lamba jatah nambar majem jinani syorbar yang wi baku wi samani kumana ya sal dine don waja tarqi am ya bolo ma tabakh jumaaji deglu akla yow atum ci domba sa ay na fa ama wa zin tarikh ba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julidi bokk talibe fu ngeen man di nek ci adina war ngal kep ñu ngi len di nuyo ci pak bu sel bi darul qudus ci touba al mahrusa tay ji di aljuma 26 juillet 2024 waaye dëppoog fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru maaram 1426 ci yaati gàddaay gi kon yéen ñi nga xam ne yéenay topp seen seen YouTube Ahibahil Khadim Nasruddin Qawim ak mboolem seen yi nga xam ne lëkkaloo na ak ñoom kon noonu ma ko waxee ñu ngi leen di nuyu ci bis bu tedd boobu ma ko waxee rek seen xel dana am lu mu dem te mooy màggalu ko asrina Muharram gi nga xam si ni ren ji yàlla dogal na mooy téeméeri at boo xam ne si waxtu wi ñuy waxee ak yéen yor bii di fukki fan juróom ñeent ci weeru Muharram ca xaama wam sasin ci la asayxu Mouhamadul Moustapha Ndiol Aminata Lo jóge woon ñaaxeen ci waxtu ñuy waxe géen ca yor yor ca yor jaar ca way juróom wa sëriñ Cheikh Anta Mbacke borom dërëm a ngërëm ca gaawaan waaye it ba fa bàyyi ko mu dem ci dëkk bu sell boobu di xaatul mubaraka di njaareem foofe la yegg ci waxtu 4 heures cëkk bëccëg ñuy waaj a julli takkusaan ba mu toogee nag ba guddi maanaam timis jimaase ci la àndeek jëmm yu sell yi nga xam ne si ñoom la doon ñoom la doon àndal ngir waajal sang bu tedd bi di xadimu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fekk ab liggéey mat foofu ca njaareem mu daal di koy jël def la ko way juróom wa santoon te mooy ne kon Moustapha day bis bu liggéey bi matee Touba la kon liggéey bu mat boobu nag liggéey bu mag boobu la asayxu Mouhamadul Moustapha taxawe ci tax taxawin woo xam ne si ni yéem na képp koo xam ne si ni fekke woon nga ko wala nga dégg ko te xam jamono jooju contexte booba lu indi siñ Tuubaa maanaam man waroon a jafe te moom mu def ko teg ko ci am xel teg ko ci la mission diplomatie bu mat sëkk ànd ak rakam ji Cheikh Mamadou Bachir ak bokki talibé yi nga xam ne si ni ñoo fa nekkoon mu jox ko Cheikh Mamadou Bachir mu indi ko fii ci dëkk bu sell bi di alma Touba almahrusa ñi nga xam ne si moom la gënoon a bëgg moom nag mu toog njaareem seere lu fa mën di ñëw ci ay jafe bis bobu nak biko ko Cheikh Mouhamadoul Bassir Inde, fekk fi way juróom ya Cheikh Mbacké Bousso serigne mam Thierno Ibra faté serigne dam abdourahman Lo mandou me khaban ak mboolem ñi nga xamni ci nek kilifa la ño xamni fekke won nañ bis bu tedd bobu ñu daldi di waxtaan ba juwo ci fi nga xamni ni fi la sancoon negam ba bam mu daru salam sant ci dekk bu sel bi ci xama wasasin muy Touba waaye it fa la julé won julém gu sel googee julli gu mujj googee julli xit korité xama bay sasin nga xamni mom la mujj julé ci Touba bañ waxtaanee kon ñu ne fii de fu mu la ñu ne kon nañ ko waajal fii ñu tëral ko fa tëraayam bu njëkk bi nga xam ne ni tey nu Touba mel moo mu mel lu murid amit loolu moo manam maanaam ñu am ko kon nag loolu ndam la victoire la boo dafa jar feet dafa jar màggal kon bu doon wàccu liggéey sëñ bi waaye ndam li nga xam ne si kon moom laa wax ne Cheikh Moustapha ànd na ko rakkam yooyu sëriñ Bassirou sëriñ ak mag ñu baax ñooñu di mag yi àndoon ak sëriñ Touba rakk yaag taalibe lol la ne jëmmi jëf joju rek ndam la ju jar manam ñukay magal kon victoire la bu jar magal kon bés bobu nak bi nga xamante ni Serigne Modou mustapha indi ko fi bañ déme ba tégal ci fukki ak ñaar xama hansasin 1358 jatti gaday gi depok 1939 ci la wote bis bi nak ne hasrina Muharram Serigne Touba mo bindon bindu mu sel doxon ko serigne ma samba muy séré ci man bam ko jangé ba noppi mu delloo serigne Touba serigne Touba joxat mako ne ma nako denc ba waxtu wi jot te waxtu wi jot na muy 1939 muy xaama Hansa Sène ci la woote ne képp koo xam ne si nii Serigne Touba nga aju bii bis bii ñëwatee na ñëpp ñëw Touba ñu màggal bis bii ndax kat dëppoo naag maanaam dëgg juboo naag sama borom ci ne képp koo xam ne si nii fanaan nga ko fii yaag ahlu badrin ak malaikatul muqarrabuna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak gaa yu baax yëpp fii la ñuy bokk fanaan ci Touba te koñ fi bokkal fanaan yàlla jegal say bakaar ba nga mel ni bis ba nga gane woon jamono kon ren boo xam ne si sëñ Seexu Xadim tëdd na ko ci suuf su sell sii di Touba xaama wom sa sin xaama wam tashin kon ñu fas yéene ko màggal nag tey jii bëccëg bi yëpp ak guddi gi yëpp fas yéene ko ànd ak sunu seex Cheikh Moustapha am sëñ Mouhamed Mbacké mi fii ci buntu këram gii di Daarul Xudus jàkkaarloog jumaa ju sell ji kon loolu mooy li nga xam si moom lañu ñu leen fas yéene digtal ci seen bii ak mboolem seen yi nga xam si ñu ngi lëkkaloo ak ñoom démb jotoon ngeen a am avant première ndax. section yi nga xamanteni ni ko nañ ndakaaru fatick kaolack mbour jaar nañ njaareem yendu fa ba takusan ñu andando dik siar Cheikh Moustapha fi ci kanamam waxtu yi nga xamanteni wax yi nga xamanteni jot nañ fay jall ak discours señ bi lool rek man naa ne doy ak magal kon lool avant première la lañ ko bi ak diiran gu gi incha lepp li fi am ci programme mo xam kurel yi mo xam waxtani fi am ak discours bu mag bi nga xamanteni ni ko Cheikh Mouhamadou Moustapha Al Karim maamam ja daa defee di ko def bu dajale murid yi wax leen loo xam ne dañ ci mën a jàpp ba déwénaat noonu rek la ko sëtam bii di Cheikh Moustapha Sëñ Mouhamadou Mbacké di defee def di def discours yoo xam ne si nii kenn ku nekk ko aju ci moom waaye ku di murid ku di julli te bëggul baax mën nga cee tànqee loo mën a naan man cee tegtaloo fii ba déwén incha allah kon bu ko defee loolu lañ leen doon digtal rek la jees ñu bàyyi leen koog ba ci kanam incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu lamba ja tas na ma dem ci soor bare yaa ngi bàkku bi samaani ku mën yeesal diine doon waaja tarqiya mbooloo ma tabax jumaa ji déglu yow atum ji doom ba saa ay na po ama wasasin taarix ba